Christian Sambou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si. Christian Sambou nga nekk expert en géopolitique déjà naka nga apprécier visite bu président Diomaye ca Chine. lu may rafetlu la lu baax la. Euh, gëm naa ni honneur la tamit ci suñu réew ci euh, ci tuurum Bassirou Diomaye Diakhar Faye euh, son ci Xi Jinping invité ko en d' abord en visite d' état donc visite d' état moo ko yóbbu donc visite d' dañ ko war a différencier ak visite officielle wala visite de travail visite d' état mooy gën a gudd Euh, ci ci xibaar yu ma jot a dégg jot na dem dëmb euh, Chine donc Pékin donc euh, te dina fa def d'abord une première visite d'État en prélude du du FOCAC mooy forum sino de la coopération sino sino africaine buy am du 4 au 6 au 6 septembre. donc euh, lu may rafetlu la lu baax la tamit pour euh, pour euh, pour suñu suñu réew bu ñu xoolee rek ci suñu suñu relation suñu lëkkaloo ak ak Chine Chine daal mooy premier partenaire premier investisseur ci Sénégal mais tamit premier investisseur ci ci Afrique parce que suñu volume d'échange yi mën na dem ba ay deux mille cinq cent milliards ci suñu koppar. donc loolu lu lu lu lu takku la lu lu lu lu am importance la tamit ci ci soxaleen suñu suñu suñu suñu développement doxal suñu suñu ci doxal suñu suñu réew donc visite boobu lu am importance la te gëm naa ni waxtaan yi. dinañ dem ci secteur lu bëri tel que agriculture la lépp lu industrie mais tamit lépp lu infrastructure Euh, Chine euh, jot na investir euh, xaalis koppar yu bëri ci lépp luy investissement bu ñu nee tey Stade Arena bu ñu nee Ila Touba bu ñu nee pont Sénégal bi wala musée des civilisations noires Grand Théâtre loolu yëpp ay réalisation Euh, chinoise la yoo xam ni c'est dans le cadre en fait euh, de la coopération entre entre les deux États donc tey bu ñu bu ñu bu ñu nu mu nu mu ko waxee ci wolof sax bu ñu bu ñu choisir bu ñu tànnee euh, président Diomaye comme président bu nar a def visite visite d'État loolu lu may rafetlu la kontaan laa ci am ko. voilà kon mën nañu wax ci wàllum koom-koom euh, Sénégal mën na euh, gagné lu bare bari ak euh, Chine et aussi donc njiitu bees yi am nañu avantage pour coopérer avec la Chine mën nañu jàpp si loolu si tamit. en tout cas lu ñu wax daal mooy Chine am na soxla ci renforcer coopération ak Afrique parce que ci wàllum géopolitique wala relation internationale soxla bu ngand la ci Chine. mën a développer infrastructure Afrique mën a renforcer coopération am ak euh, dëkku dëkku dëkku Afrique yi euh, pour mën a tamit tabax Euh, euh, une euh, benn statut de de grande grande puissance mën a égaliser yeneen yeneen puissance yi c'est vrai que Chine mooy tey deuxième économie mondiale mais pour mën a doon véritablement une grande puissance dafa soxla ay réew comme comme Afrique cinquante quatre réew yi yoo xam ne dinañ daje entre le quatre et le six foofu ci wàllum euh, ci wàllum euh, coopération économique léegi nag ñu ngi xaar euh, ci Xi Jinping mooy njiitum réew Chine lan lay lan lay lan lay wax ci ci ci enveloppe enveloppe bu ñuy bu ñuy jox réew réew yooyu yëpp yu ñuy séddalee réew yooyu yëpp di fàttali ku enveloppe yooyu du ay question don rek ay prêt la mais mais ay prêt yu baax la loolu la ñuy tuddee ci nasaraan prêt concessionnel donc ay prêt yu baax la yoo xam ni taux d'intérêt yi dañuy dañuy dañuy wàññeeku wàññeeku bu baax donc ñu ngi xaar euh, annonce annonce annonce boobu euh, mais gëm naa ni tamit euh, enveloppe bi mën na mën na am solo parce que buñu ñu comparé ak deux mille dix huit ci ku enveloppe bi mi ñëw ci soixante milliards deux mille dix huit avant Covid la woon donc tey ñu ngi ci deux mille vingt quatre c'est vrai que Covid bi jot na jaar fii am na effet ci ci économie africaine yi mais économie chinoise yi mais daal la ñu xaarangum maa gëm naa tamit. Euh, Sénégal mën na ci gagné euh, lu bëri euh, parce que tamit am nañu ay autorités yu bees yu am agenda bu claire bu ci njëkk ci agenda bi mooy mooy renforcement ou développement de l'industrie te ku am te ku xam Chine xam ni tamit industrie moo ko taxawal depuis mille neuf cent mille cinquante avec la politique révolutionnaire de Mao Zedong donc xam nañu que industrialisation Euh, Chine la fekkee baax tamit soxla nañu lépp luy dem ci agriculture mais soxla nañu lépp luy dem ci ci infrastructure donc loolu yëpp ay koppar lay laaj donc Chine mën na ci gis boppam ci investir euh, ci domaine ci domaine ci domaine ci domaine yooyu donc nañu xaarangum fii ba le 6 xam exactement lan lañ ci jëlee comme comme comme voilà euh, ñu wax un peu euh, Christian si discours bi nga xam ni PM Ousmane Sonko yëkkati na ko contre Israël une façon de soutenir la Palestine est-ce que lu ni mel mënul xajamal euh, relation diplomatique Sénégal Israël. alors position euh, Ousmane Sonko di euh, fat di rappeler rek euh, du position Ousmane kese donc en fait position Ousmane Sonko la ak Diomaye parce que ci discours bu ma jot a dégg ci jógee ci Ousmane Sonko daa njëkk laaj Bassirou jomay Diakhar Faye ndax mën na teew ci manifestation boobu basiru jox ko ndigal voilà ci ndigal boobu tamit gëm naa ni basiru jot na ko wax lan la ci mën a rot comme kàddu donc euh, ci euh, ci euh, ci ci kaddu yi nag kaddu yi xaw na xaw na dëgër c'est vrai mais crise bu muy bu muy bu muy analyser bu muy wax tamit mooy crise entre Palestine ak Israël crise bu métti la tamit crise bu violente la tey boo naree xool images yi de bombardement ci ay hôpitaux ci ay école ci ay civil ñoo xam ni defuñu dara loolu tamit lu lu lu métti la ci ci ci ci doomu aadama donc Ousmane tey bu demee ba ne dañoo war a isoler politiquement euh, Israël euh, sur la scène sur la scène internationale euh, je pense que du du du du du wax ju ëpp donc position solution politique la te du moo ko njëkk a proposé tamit am na réew yu ko jot a proposé yokk ci tamit reconnaissance Palestine et cetera mais bon isolement politique d'Israël ndax mën na jur. Euh, conflit euh, diplomatique entre Israël ak Palestine euh, ku xam tamit Ousmane Sonko xam ni tamit homme homme homme homme de combat la tamit homme de polémique la donc sans doute que ci stratégie am bëgg na genre conflit politique yooyu am pour ñu mën a waxtaan directement ak représentation Israël peut-être que opportunité lay war tamit. pour mën leen wax position Sénégal par rapport injustice boo xam ni Palestine mi ngi koy mi ngi koy mi ngi koy jot a en tout cas ci ci fa euh, ci wàllu yooyu laa mën a euh, lan mooy xew ci ci kanam. Mmh. est-ce que est-ce que est-ce que euh, Christian Sambou ñi naan euh, jot na ñu ñu Sénégal est-ce que jàpp nga ni lu ne mel euh, rafet na wala lu mën nekk la. waaw bu bu alors euh, état daal état bu nekk am na sañ-sañ bu mu bu mu bu mu euh, état bu souverain daal mais gëwuma mu nekk solution bi dàq euh, ambassadeur Israël fii ci Sénégal puisque ambassadeur tamit mooy mooy lien bi mooy lëkkaloo réewam ak réew bu mu nekk mooy kanal de discussion mooy canal d'échange mooy tax waxtaan mën a am donc boo dàkkee koo xam ni mooy mooy mooy mooy kuréel buy permettre euh, wax waxtaan yi donc mooy da nga créer benn rupture euh, diplomatique donc conflit diplomatique yi ci lay gën a graawee donc maanaam doo leen waxtaan même bu amee problème donc ku waxtaanul nag boo leen waxtaanoon rek alors que problème am na lu muy jur tamit mooy conflit conflit ouvert donc euh, ci bépp conflit nag même conflit politique waxtaan am na ci solo waxtaan euh, diplomatique la te ambassadeur euh, Israël ci Sénégal loolu mooy njëriñam loolu mooy loolu mooy importance am te gëm naa ni tamit par rapport ak discours Ousmane Sonko ak Diomaye bu ñu prononcé keroog ambassadeur boobu jot na jottali kilifa mi fee ci Tel Aviv Euh, lu lu mel noonu lu mel ni position Sénégal radicalisation de la position euh, sénégal sénégalaise euh, dans le cadre de la diplomatie dans le cadre de la crise Palestine Israël te te discours discours Diomaye ak Sonko ci position ci ci crise boobu. Euh, waruñu ko waruñu ko nu koy waxee sax waruñu ko soofantal wala négliger ko lu am lu am doole la y a un fort leadership aujourd'hui du Sénégal euh, sur la scène africaine euh, donc le plus Euh, le plus influence ci les votes à l'Assemblée générale de l'ONU le plus influence par rapport aux autres pays tamit mën na ko am le plus influence panafricaine mun na ko am donc on parle quand même du leader euh, Ousmane Sonko donc loolu am importance la te gëm naa ni euh, les autorités euh, israéliennes dina ci dinañ ci def attention bu baax xam ni que ci Afrique am na réew boo xam ni jël na position clairement mais position politique position politique c'est important Euh, ci euh, ci crise euh, Palestine Israël. Mhm. dernière question rek Christian Sambou. Mhm. Mhm. une bonne partie de la société civile liñ bëgg moom mooy le départ des bases militaires françaises situation boobu noo ko jàngate jàngatee. dama bëgg ñu ñu ñu différencier ñaar ci wàllum souveraineté parce que société société civile boobu bu ñuy laaj départ base militaire française yi ci wàllum souveraineté lañ koy wax. mooy jóge nañ ci colonisation euh, amul euh, amul laytaay amul raison pour euh, base militaire étrangère pas France seulement ñu des ci Sénégal donc loolu loolu maa ngi ciy ànd bu baax mooy premier aspect bi mooy base militaire étrangère yi dañoo war a jógee Sénégal pour suñu souveraineté bopp pour suñu autonomie tamit stratégique parce que tey bu ñu bëggee def coopération militaire bu leer boo xam ni dañoo bëgg mu des suñu diggante ñun ak Mali rek euh, en tant que citoyen euh, bëgguma France euh, am lu mu ciy wax wala États-Unis am am lu mu ciy wax loolu mooy autonomie stratégique loolu mooy tamit souveraineté boobu benn benn aspect la donc base militaire française yi base militaire étrangère yi dañoo war a jógee en fait Euh, ci euh, ci suuf ci suufu Sénégal en plus suuf foncier boobu mun nañ ko utiliser pour leneen mun nañ ko utiliser pour des logements sociaux wala mun nañ ko jox armée sénégalaise mën ko mën ko utiliser parce que suñu armée tamit bi ñu gën a am doole mi ngi ngànd donc suuf suuf soosu dañ ko dañ ko soxla donc ça c'est le côté pragmatique mais aussi le côté idéologique léegi beneen aspect bi mooy boo nee tamit euh, base militaire étrangère yi ñu jógee suuf Sénégal Euh, ça ne traduit pas le signifié wul ni que euh, waratul am coopération militaire entre Sénégal ak États-Unis Sénégal ak France et cetera coopération militaire yi war na continuer par exemple Sénégal mi ngi euh, at bu nekk mi yon yónni ay doomam yu bari ay officiers yu bëri par exemple ay Saint-Cyr ci école yu ngandi les grandes écoles militaires di leen former foofu donc loolu genre coopération yi daa war a war a continuer parce que coopération réew yëpp ñoo ko soxla Euh, sakatuma coopération euh, militaire lu am solo la ci réew nga mën a jàng ci ci ci xaral yu bees yi nga mën a jàng ci euh, doctrine militaire doctrine de défense yu bees yi donc coopération yooyu war na mën a continuer mais ci wàllum ndax base militaire yi nañ des fii de manière durable loolu waratu waratul mën a nekk parce que jógee nañ ci colonisation te loolu permettre ñu ñu garder suñu euh, merci beaucoup Christian Sambou ñu ngi lay remercier bu baax a baax. merci beaucoup madame Moreau. Christian Sambou expert nga en géopolitique jërëjëf.